tey le 6 benn journée bu mag la ñëpp di xaar sénégalais yi ci wàllu làmb dox ci diggante Fils de Balla ak Gora Sock lan lañ ci mën a xaar ci Jam Production. surprise ak lu rëy ak lu musul am ci làmb ndax combat de taille ñaari mbër yoo xam ne ñoo bokk ñu ñuy représenté seen gox muy Gora Sock di Fils de Balla drapeau sëñ Cissé mu sëñ Babacar ñu jël la centre de la jeunesse comme ni ko gars yi wax Sidi Diop tuddee ko drapeau muy diggante Jokkel ak Kewel muy kooku rek xam nga ne es arène nationale xajul ci kawam seen Cissé arène national attanu ko góor a soog a production di tëj saison kon ñu ngi woon njabootu làmb yëpp nañ ñëw ñu dund ambiance dund fair play tëj saison bi jël caabi def sunu poste ba déwén ndax làmb joo xam ne euh, jili ku ñëw dimanche di nga di nga gis loo gëj gis si làmb ndax làmb ju neex la ñaari mbëri bu ñu bëree mu neex bu ñu tuusee mu neex te surprise bi amateur yi bu ñu ñëwee dimanche lañ koy xam la 14 incha allahu rabbi. tike yi ko def. tooñ ma benn amateur. tike yi 2000 francs la. ñetti grand combat laa def def tike 2000 francs amateur 4000 loos 10 000 francs ba pare drapeau sa xarit sa doomu nday Assane Fall nga xam ne kooku ñi muy jox ci réew mi rek bu ñu ñëwee arène bi fees. waaw ñi muy may waxuma ak ñi muy lebal. ak ñi muy jaay waaw muy combat bu neex. sama booy bi bés kuro mu ngi ci ci liggéey liggéey bu am solo waaye ñaari fan daa xaw a teggi loxoom ñaari fan dafa teggi loxoom waaye nag nee naa nee ko suba na accéléré affaire yi. Youssou ñaari mbërë mbërëm lañu fils de Balla Gora Sock muy capitaine équipe nationale kon xam na xañ na di ko ci laaj wax ci làmb jooju wax ci xalaatam. waaye sama xarit nga sama léppo nga maa ngi lay invité di invité sa jigéen ki nga xam ne ñëpp xam nañ sa diggante ak moom koo bëgg lu mu xewle nga taxaw ci muy Ngoone Njaay géwél chaque mercredi yaa ngi laa poète si sa euh, ci lëmbalëm kon maa ngi koy invité ngir yow comme sa xarit la tey danga maa bëgg ku la bëgg ma bëgg ko kon Ngoone Njaay maa ngi lay invité di la lancer appel solennellement la 14 su ñëwal man maa la invité ndax jili da laa bëgg chaque mercredi jile ngi sa la poète si sa lëmbal bi ay ruubal la